bismillaahi arrahmaani arrahiim asalaamaaleykum wa tey mooy guddi ñaareel ci koor naafila gi tey juróom benn rakka la kon mi ñetti sëlmbal rakka bu ne faatiha benn yoon inna a'taynaaka al kawsara fukki yoon ma baama ko juróom benn rakka la rakka bu ne fatiha benn yoon inna aataynaaka al kawsara fukki yoon